Euh, kër Albouri ñoom nag la ñu wax moom mooy Albouri rek la ñuy topp Albouri kese alors ñu bëggoon a xam seen mbër tey euh, naka la waajee tey ginnaaw ba mu waree dem fële nga xam ne mooy Arène national waaw Albouri dafa nekk suñu mbër bu nga xamante ne macha allah depuis jamono xale lañ commencé ànd ba tey tey ñu toll nii ba yàlla def ko mu doon mbër tey moo tax ñun saa yu xewlee ñun ñooy jël responsable bi ñoo waaw ñoo teewal ko waaw teewal ko defarool ko lépp. lépp lu nga xamante ne lu ko lu ko jar la ñu defaral ko ko dem arène nationale bëri suñu làmb si jàmm ak salaam daan jàmm ak salaam ñibbi si jàmm ak salaam. Mhm. waaw. alors tey ah dafa am nag euh, nu mu tuddati dafa am dafa am dafa am adversaire bu doy waar. xam ngeen ko. Mhm. ci mën a bëreem xam ngeen itam ci am fitam mhm. ba ngeen ko jël est-ce que xool ngeen ko xoolaat ko. waaw ah, Kewel moom. Albouri moom boobu koy jël moom. parce bu yàgg. xool na ko bu baax xam ne mbër bu doy la mbër bu mun bëre la macha allah mbër bu mun bëre la te champion la moo tax Albouri Albouri tamit euh, xam ne moom tamit moom champion la mu ñëw jël ko mais Albouri jël ko ni question da ni mooy loolu naka su noonu Kéweul dëgg la mun na bëre lool te moo jiitu Albouri si làmb mais Albouri daka dab ci su ko lu nga xamante ne dafa ëpp dafa ko ëpp doole loolu moo tax Albouri ñëw jël ko daanoon na fi suñu benn mbër. jàpp nga ni Albouri Birame benn njéem loolu moom jàpp nañ ko ba pare moom waaw ñëpp jàpp nañ ne ak euh, Albouri moo ëpp Keweul jàpp nañ loolu moom waaw. d'accord rendez ci kanam. waaw waaw. lii pour lan la. li euh, li la bagage yi nga xamante ne waaw pour waaj dem esat waaw musique yi yaa gën a xam nekk waaw dem esat def ko musique daan ko daan ko si jàmm salaam ñu si jàmm salaam li sëriñ bi ko dikk waa mais dafa mel ni doomu Jolof laay seet ne mais gars yi gars yi dafa mel ni affaire yi saf na de. waaw noonu la demee loolu mooy yoon di ñaanal Alboury ndam rek ndam lu seddu guy waaw lu làmb la mais yéen a ngi mbéy mu door waar nag mi kéwal waaw làmb moom ku si nekk ak sa gis-gis rek ngay wax waaw mais ñun moom li ñu am lañ lañ xam quoi waaw ñun suñu mbër tamit doy nañu wóolu nañ ko te si kàttanu yàlla bu arrivé sifflé dinañ xam ne moo mën moo ëpp doole waaw mais gis ngeen bu baax ci mën a bërëm ci mën a dóoram Alboury ko dàq xeex moo ko dàq bëri te bu arrivé sifflé da ngeen si xam dara jàpp nga ni jàpp nga ni combat mën naa jexe kaw mën na jeexee si lépp làmb lañ wax bëri dóor waaw bëri dóor lañ wax kuy dem arme doo fàtte sa guerre waaw ku mën sa morom rey ñoom ñaar dina yàgg wala noo du yàgg ndax lan noo dama koo xam dama wóolu ki ma xam ki ma yor dama koo xam de da nga koo xam waaw bu baax dama xam bu baax d'accord alors gis nañ ko mu doon jàppale Modou duloo ci combat bi passé euh, euh, ban jàngat nga defoon ci ci ci ci combat boobu waaw ku xam Grand Médine parcelle xam na bi loolu benn la quoi sotti seeg jarsi loolu amul xaajeeg seen quoi waaw ñoom ñëpp benn Modou Lo grand am la moo waral loolu noonu yëpp tamit am waaw. Ah, waaw si kanam incha allah. waaw ah, mais gars yi affaire yi saf na de. non bés bés bee moo tax bés de waaw. mbër bi di bëre garaaw na. non. Keweul dafa mën a bëre. suñu ñoo ko daax a bëre fuuf. te combat bi daf ñoo jaral ndax combat revanche sax xam nga nu mu dawee Keweul duggoon na garaaw bi ren ñaaralaat ko. moo tax faaw ñu jël suñu matukaay bu baax waaw incha allahu rabi suñ ko jàppee daal dinañ ko waaw dañ koy daan eh, dinaa fi ñëwaat de. soo fi ñëwaatee xool da ngay fekk ñuy zibilé soo fi ñëwaatee mooy dàq ndax da ngay fekk ñuy zibilé. d'accord di du Jolof étoile. maa ngi lay maa ngi lay ziar bu baax. maa ngi lay ziar alaaji. di fàttali moom rakk la ci ki nga xam ne moom mooy Alboury mi war a bëreeg tey Keweul ngeen jël adversaire bu doy waar yow xam nga mën a bëreem lan moo tax ngeen jël ko. waaw waaw Albouri moom yaakaar naa instant bii nii amatul adversaire boo xam ne mi ngi koy bàyyi xel ci làmb parce que adversaire yu yu mu jugee yëpp gis nañ ko xam nga yaa ngi comprendre tey lu ci mel ni ay jara dëkk yaa ngi ay zaal nengalee rek ay ñooñu kon yaakaar naa bu dee kéwal amul lenn lu ñuy xalaat ci moom lu may ñaanal ko rek yàlla defal ko ndam parce que li mu waroon préparé yëpp wax dëgg fa yàlla préparé na ko préparé nañ ko côté bu ne xam nga te yaakaar naa ne champion soo ko daanul doo ne yaakaar naa Albouri lu mu opté ci làmb bu amee lu muy xalaat ci Kéwél rek pour man mooy lool des na yaakaar naa Kéwél mu amul lu ñuy xalaat ci moom. tactiquement fan ngeen mën a jaar ba daan Kéwél. non ci lépp instant bi moom lépp pare nañ ko muy côté xeex côté bëre côté. lépp Alboury mënul xeex. parce que non <laughs> Alboury ñaata kaaw la am Alboury day xeex day bëre lépp la ñuy def en tout cas daal lépp wax dëgg yàlla préparé nañ ko ci côté xeex côté bëre côté lépp lu lu mu ëndi rek incha allah dina ko fekk bu neexee yàlla hmm. waaw. maanaam ku ku ku ëpp wala euh, ku gën a am poids ci ñoom ñaar. waaw parce que instant boo xoolee Albouri moo ko sut Albouri moo ko sut mais Keweul tamit champion la duñ koy nangu lool parce que champion bu mag la parce que tamit fii moom. boo jël boo daanul champion doo duñ la nangul sa champion. yaa ngi comprendre bu mag la mais Albouri tamit champion la ñëpp nangul nañ ko lool. kon ça veut dire que instant bi duñ def lu may ñaanal ko yàlla parce que bu dee côté taay moom moo sut mais tamit affaire yi moom basé wul foofu ci lan la basé wu moom mooy lan lamb la ñuy def. bu laajee xeex dañuy xeex bu laajee bëre dañuy bëre lu mu laaj dañ koy def loolu la ñuy yóbbu làmb ji incha allah. d'accord waaw jàpp nga ni combat bi dina yàgg. non comme lu laaj rek ñun moom luñ ko luñ ko luñ ko sant mooy ndam lañ ko sant nu mu ko amee baax na incha allah bu neexee yàlla parce que tamit lu topp ci ginnaawam Alboury bu jugee réew mi ñooy jug kon ça veut dire que kooku noonu kooku noonu dafa am nen noo xam ne la war a la la dafa am noo xam ne la la war a taxawee bu ñëwee ci géew. amul xalaat lenn lu mu mën a lee bu laajee xeex dafa war a xeex bu laajee bëre dafa war a bëre kon ça veut dire que lépp la ñuy yóbbu. la gën a mënee moom. ci lépp Alboury instant bi ñu bëri. na loo xam ne ci la gën a fort. ñu bëri sax dañuy jàpp dañuy umpale ne dañuy umpale xeex bi dañu jàpp ne xeex bi la gën a mënee mais bëre bi la gën la la gën a mënee. te bala nga koy xam tey ñu ne runkum daje ñoom ñoom ñaar ci ngay xamee ne Alboury bërekat la barke Seydina Mouhamed bëreegul sax wóor na yàlla. bëreegul bëreegul lu garaaw laa lay. tamit non man am naa combat. am naa yaa ngi doon laaj ki nga xam ne moom mooy Ada Fass. waaw waaw mais loolu yëpp ay làmb la. mais instant bii nii kii lañ am Baye Waly bu Tëngéej lañ am. le 21 janvier mooy journée Assane Ndiaye bi. incha allah ñooy bëri spécial bi ci ci kii euh, ci kii BM ak ak Petit Niang ñooy bëri spécial le 21 janvier di ci woo ñëpp nag di ci woo waa Jolof surtout. yaa ma gën a xam yow sama doom ndey nga sama lëm nga loolu après dañ ciy yaatal. incha allah <laughs> na kontaan jërëjëf incha allah. mbokk yi ñi ngi fi nga xam ne moom mooy buntu kër Alboury mu war a bëree ki nga xam ne euh, voilà mais gars yi kaay kaay kaay kaay waaw seen mbër moo war a bëree ngeen ñëw di ko dooleel voilà. waaw Alboury moom ah, di ko ñaanal ndam rek. lamb moom di ñaan waa grand bi yëpp comme niñ ñëwee jàpp si. ni ni ñëwee si combat bi waaw di ñaan di ñaan ndam soo xale yi parce que Alboury nit ku baax la quoi nit ku baax la moom mbër yi fi nekk yëpp am na respect si doomu aadama yi looloo tax ñu ñëw jël combat bi def ko comme sunu combat di ko ñaanal yàlla moo am ndam bu sedd bi waaw si loolu Alboury war a bëree ñu fi ay mag ay xale lañ fi gis loolu itam est-ce euh, euh, mag ñi ngi fi mag ana mag ñi ana mag ñi fi ay xale fi gis non xoolal mag ñi fi lañ fanaan fi lañ fanaan di sept heures du matin ba léegi am na ñoo xam fi lañ fanaan waaw am na ñoo xam dañoo génn dem joxe ay soxla pour ñëwaat pour préparer. lan ngeen wax seen doom tey. waaw liñ nga wax rek na dal rek jox ki muy respect ki muy parce que nit moom soo bëree xale bu ndaw sax na nga ko jox respect loolu rek lañ koy ñaan incha allahu rabi ñaan yàlla may ko ndam bu sedd guy ndam bu gaaw incha allahu rabi. ci dóor wala. waaw ça dépend rek. jàpp nga ni dina joxe ci kaw. non mën nañ ko dóor mu daanu sax. waaw mën nañ ko dóor mu daanu. waaw mais ci côté bépp daal pare na mhm. waaw. mën ngeen dóor al Keweul mu daanu. bu baax kay. ñoo hmm. ko mun ko dóor mais tamit commune bi dafa xaw a bari est-ce que loolu tamit du joué ci affaire am yi. non non du joué Keweul suñ ko jaabee. Hmm. suñ ko jaabee. yaa xam lépp dëgg la. billaahi wallaahi taalaay waxuma loolu dóor mu daanu sax lu nekk xaj na si. Uh-huh. Hmm. waaw Alboury rek la ñuy topp ñun lépp xaj na si. wër na yàlla. Alboury ci mën a touche am Alboury ci mën a bëreem jàpp ngeen ne mën na dóor euh, ki nga xam ne mooy Keweul bu daanu. lan mooy loolu. lan mooy loolu lan mooy loolu li nga wax. Keweul dafa mën a bëre. ah boo mënee bëre te fekk fi mbër mën bëre ak mbër. Hmm. bokkul Alboury mbër la. te dama bugg àdduna laala wax ñu bàyyi xel booy bi yàlla na ko yàlla lafal cet yàlla bu ko laamin jiitu fi mu jëm yàlla na ko borom bi defal di wax ñun xam nañ lu ñu yor saaga neewuñu ko benn côté. mais moyens yi moo manqué. lan moo ko manqué. moyens yi moo manqué mooy ni que ñun maanaam ñi fi nekk jàmbaar lañ ku si mel ni tey Youssoufa Niang ñu ngi koy sant bu baax monument dëkk bi la ñu ngi koy sant bu wér a wér a wér wér président ay Grand Médine muy Mbaye Diédji kenn du moom moom it jàmbaar la ñu ngi koy sant bu baax di sant Tidiane jaalo di ko sant Tidiane Diallo bu baax di sant Saaren Saaren ñu ngi koy sant di sant Aline Badara di sant nag kenn ki nga xamante ne mënul ñàkk foog ma sant ko muy ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour barki leeru alxuraan bu ñu gisee Grand Médine jamono ji mobilisation bi di demee nii ñii ma lim ñoo si jàpp mais kenn du Pape Malick Ndour tey yëkkati na deux bolok may ñu bolok bu si nekk cinq cent mille lay jar bu ñu mobiliser booy ñu dem esat grand minute ñoo yor li nga xamante ne bu ñu amee ku ñun jàppale dëgg maanaam ñii nii ñii nekk ñu ñuy gërëm muy ku si mel ni Youssoufa Niang te yàlla sunu borom bu yokkoon nombal tànkam no du ñu réccu dara ku si mel ni président ay ses grand minute bu yàlla yokkoon nombal tànkam barki leeru alxuraanu karim ñu gis lu bëri parce que saa su ne dama koy wax nee naa sedd mënu si tuunu def dara su ma waxee loolu ci biir wax la dama bëgg gaay parce que loolu noonu bu ñu jàppalee ñun booy am nañ lépp booy fi nekk fii si kattanu sunu borom yàlla nañ ko yàlla defal fii ak deux ans trois ans yàlla nañ yàlla génneel roi des arènes champion ak booy yu nga xamante ne am nañ si làmb lu kenn amul muy teral seen waajur ba lépp lu si waay di mun a am ñu am ko di wax ñëpp tey ñu ngi woo ñëpp di woo waa Grand si no violence di woo ñëpp si non violence ñu ñëw en masse ñu dooleel sunu mbër Albouri war na génn niveau bii mu nekk barki Seydina Mouhamed Albouri war na génn si niveau bii mu nekk te suñu yàlla suturaalee ba ñu am ndam tey grand combat bu ñuy am si kattanu borom bi képp ku ñu ko jox suñ la indilul 10 car 20 bolok wala 15 bolok bu ñu tëgal làmb di wax na man la suma yàlla nañu yàlla lafal cet yàlla nañu yàlla suturaal di woo waa parcelle 1 ba 26 di woo waa di woo waa Grand di woo waa Diamaguène di woo ñëpp jàmbaar yi di ñaanal Siteu tamit lamb ji mu jëm yàlla na ko sunu borom may ndam di ko wax mu jàpp Abdou seek bu baax Seck jàmbaar ñu ngi bëgg ñëpp aja jàmbaar ji ñun Grand Médine lañ dëkk derbeeg deret bi wax ak sa waay ah, sëriñ bi waaw waaw def yi ñëw jàppale seen doom di Alboury loolu itam loo ciy wax dafa mel ni mooy rek moo leen dese waaw instant yi mën nañ ne sant nañ yàlla bu baax a baax ndax lu ci bëri léegi yem na maa ngi dégg léegi sa biir wax sax nga naan gisuma benn mag xale yi rek laa gis dëgg la mag ñi am na ñu toogee côté mais dama yaakaar ni ndaw la yàlla àndal te làmb fawum ndaw la ndaw ñaa ngi fi xam nañ ko te mën nañ ko te maîtriser nañ ko te dañ ko seere Alboury ñu ko daan gungee muy am ndam noonu lañ koy gungee tey mu am ndam ndax ñu ñun ci dëkk bi lañ dëkk ndamu dëkk bi rek moo ñu ñor kon Alboury saa jógee wala ñu mel ni moom jóg faaw ñu jóg moo tax tey ñu def nii ñëw taxaw buntu këram pour jàpp ci combat bi am ndam te incha rabi da koy am loolu moom lu nu njortu la waaw ndax moom làmb man yaakaar naa ne saa ñu demee ba gisanteeg moom mbooloo mi ñëw ñëpp ñëw ay mbokam dar ko ñaanal ko jom jeeg ngor gi mi ngi ci moom ta làmb fawum gor la rek waaw fawum gor la te am na ngor gi am na man-man gi te du fooyee bés moo tax dañuy am yaakaar daal ci moom waaw. ok jërëjëf merci beaucoup mais Ali mais Ali Ali Ali li ci des bëreetul sarax baa ngi ni affaire yaa ngi nii Alboury seen doom war a dem euh, bëri ji ak kéwal en tant que frère loo ñu mën a wax ci lool waaw lu ñu mën a wax mooy pare nañ pare nañ fépp. Mm. comme dab rek moo ñu ko tàmbal mm-hmm. waaw. lu mu leen tàmbal. victoire. 10 mm. combats di 11 ah, combats 11 victoire bi ma 11e combat victoire. Mm-hmm. amuñ si xel ñaar sax wóolu nañ ko trop. mais combat bi mujj gis nga ni mu demee. moo jar de oui. daf ko dóor dóoru métti. Mm-hmm. kiiwul soo andee xeex tam dañ koy noq. daf ñuy takkal deret rek. kase day daan wala mu takkal ñu deret loolu kase mën a am. d'accord waaw léegi ngeen jël nag bu mën a bëre mi kéwal. waaw non kéwal kéwal waaw kéwal mën na bëre nangul nañ ko ko. parce que jaar na fu mu war a jaar bëri na Tidiane Faye bëri na ñoom ñàkk jaruñu waaw moo ñu may sens mais dañuy sangoo sens bi loolu maa mul wax war nañu koy sangoo waaw par nañu fépp kay waaw dañuy bëri dañuy xeex ambiance su jëra dañ koy def xaaral ba kanam dañu ambiance ba mu saf soo ñu amee ful la moo fay taxaw lundi naa fi ñëwaat de lundi noos mooy slogan waaw ñuus noos xëedam seeras la ko hmm. kase waaw dañoo tàmm victoire suñu yëf la mobilisation bi pare nañ hmm. cent pour cent grand mérite ñëpp ay jug hmm. ndam rek incha allah waaw kéwal xaaral ñoo ngi ñëw dal sa kaw defaral la bagage du cur mbërëng si biir pare na léegi mu génn waaw jaajëf amee yow noo def ah noo def maa fi lu tax nga taxaw fii ah. loo fii def ah suñu nijaay bëre foog ñu nekk si. seen nijaay mooy bëre. bilaay yow. Ah. kan mooy seen nijaay. xanaa albury. mais seen nijaay tey dafa am dafa am adversaire de. ah dëgg moom. am na adversaire bu mën a bëre. bilaay yow. Ah. du dara ndax ñun moo ñu ko tàmmal bëre daan ñibbi du dara moom. bilaay yow ah, moo ko tàmmal. tiitu ñu garaluñu. gocc rek jàmm. lundi naa fi ñëwaat. lundi ñoo ngi lay xaar. xoolal lu waay waxoon na ca delluwaat. waay waay lu waay doon jaay tey dina lamb tay xoolal lu waay eh lu doon jaay tey mu lamb li laay yow. d'accord ana ana waa ji. amee ci loone sant yàlla bu baax. naka affaire yi. sant yàlla bu waaw li de. waaw fi mu ne nii dernier ci lañ toll nii. alors euh, seen mbër jamono yi ñu toll fan la toll. waaw fi ñu ngi préparé rek xam ne mbër moom bu demee ba heure bi moom. Euh, ay dernier réglage moo lay des rek. ndax fi ne nii moom li ñu war a def lépp def nañ ko. Mhm. entraînement yi jàll na kondaa gi na physique bi jàll na. ngëm-ngëm bi rek mooy des ak liggéey li nga xam ne ni loolu nga doon liggéey nga ñëw wane ko li nga doon liggéey ci contact li nga doon liggéey lépp ak say mbokk yi nga doon àndal ñooñu ngay ñëw àndal fi ni dernier réglage moo ci des ñaani yi dernier soo xoolee dernier réglage bi moo dafa ëmb lépp ëpp na ñaan yi ëmb lépp mais mais ma jaaxal may boo demee ci yeneen koñ yi da gis sax yeneen ténor mais Grand Médine Alboury kese moo fi nekk loolu tamit est-ce que du handicap ci moom ndax ndax ñun ñëpp ñi fi nekk bëri na mais Alboury suñu borom dafa def fi nii dafay jiitu am na ñeneen ñu fi nekk nag ay Yékini Senior a nga fi mbër yu mag yaa ngi fi ndax boo xoolee fi ne nii moom moo leen fi nekkal caatu Puel mu ngi ci ginnaawam ndigal étoile Jolof John Dal Bondé Bombal Abu Alu ñëpp a ngi fi dafa maada ñëpp a ngi fi mais moom dafa jiitu rek liñ naan njëkk a fecc taxatu mu jëf geew dafa jiitu rek ñun ñu jël lép jiital ko loolu moo tax nga gis mu demee nii rek mais du dara dañ ko jiital rek te fi moom waaw muy ci buur ba muy keneen kuñ fi jiital rek nga am dañ ko jiital rek mais affaire moom loolu ci dara d'accord mais nag yéen a bëree bër bu mën a bëree mi kéwél waaw kéwél tey nañ ci bàyyi waaw lu waay gàtt gàtt xam ne kéwél moom day tëb mhm. waaw te kéwél moom buy tëb ah, doomu nday lëg la mhm. ndax buy tëb Alboury fi ne nii lëg la ndax Alboury moom boo tëbee mu jàpp la def li war ci yow ndax ku ne xam na ne bi mu mujj arène nationale gis nga lam mu fa def kon tey kéwél waaw dañ dañuy dañ koy wax ne moom na dëggal boppam rek taxaw te xam ne lu të xam dafa yàggul mhm. waaw pour ndóbin rey sa maam nag boo gisee lu da mais ñun duñ ko daw ndax moom jëlal na ki nga xamante ni mooy mooy ndongoloo di suñu grand frère daan ko jël bi nga xamante ni jël bu rëy la léegi nag Alboury war a ñëw jàmmaar waaw waaw ñun moom xam day metti fii ñuy wax ak yow sax lu metti la ñuy daj mais tamit lu metti góor lay dal soo xoolee ñu ne ndeysaan lu metti góor lay dal jigéen lim ci bokk bëriwul ndax góor mooy dem uti dépasse lu metti lépp moom lay dal moo tax suñu borom def ko muy góor kon góor da ngaa war a góore te ñun dañoo góore ba pare am doole ndax góor day am doole ndeysaan noonu la dem lii la waaw lii ay tegdal lii moom lii moom ay tegdal rek ma ne ko arbula lii ay teg dal rek lii moom du dara lii ay teg dal rek lii garaaw na du dara lii garaaw na de dafa ànd ak làmb rek mais du dara ñun daal victoire bi daal moo ñu ci soxal ah. moo ñu ñor waaw ñun ñëpp muy John Waly muy Étoile muy ndigal muy keneen waaw di sant nag suñu coach bu baax war ñoo wax ay kaddu sax keneen di ko gis te suñu coach dugaluñ ko ci muy américain di sant waa Ñambur di sant ñëpp di sant ñëpp ñu jàppale ci combat bi ndax ndax jàppale yi des na mais am na ñu ñuy jàppale lu waay gàtt dégg-dégg xam ne boo nee mille ñoo war a nga am téeméer da koy sant yàlla ndax am na ku bëgg kenn ku ko jàppale te amu kon boo wooyee ñetti jàppale ñaar ñëw mu des kenn ki des kooku da koy soñ pour bëgg ñëw waa Grand Médine ñu ngi woo autorité yëpp ñu ñëw jàppale Alboury jàppale John Waly jàppale Étoile ñëpp ndax ñun amuñu lu dul yéen ñu ngi lay sant nag di la gërëm di la jox sa waajuwaay kenn du yow ci réew mi gis nañu liggéey bu fay sa taxi jël sa xaalis jël say matériel ñëw di ñu jël mhm. ñun ñi nga xam ay mbëri ndaw lañu nga ñuy jël di ñu génne yal na la yàlla defal jàmm xam nga wéral yaar yi xam nga sant la di la gërëm di la jox sa waajowaay bu baax a baax di ñaanal Alboury am ndam jërëjëf mbokk yi ñi ngi fii nga xam ne mooy buntu kër Alboury